di photo ak moom lu mel noonu nag gis ngeen ko waaye kii di Ousmane Sonko rek gannaaw ba nga xamee ne rek tegoon nañu ko loxo ci euh, dossier boobu nga xamee moo doon dossier euh, bu Sweet Beauté euh, doxoon ci diggam ak Adji Sarr waaye kii di euh, Ousmane Sonko nag yoon daf ko daanoon ñaari ati kaso yoo xamee ne nag ferme deux ans ferme la ñu wax waaye ci biir kër gi lañu ko gisoon nag ñu daal di ko fi barricade gis nañu yu bari xew na fi ci ay fet ak yooyu waaye moom Ousmane Sonko dañu ko lankaloon génn ci quartier bi nga xamee ne moom fi la dëkk lu ci mel ne feetu ko tabaski ci biir këram la ko yu bari xew na ci nañ ko sax mu daan def ay déclaration yoo xam ne muy wax jamono ji la muy dund ak yooyu bokk na ci ci doomam bu góor boo xam ne rek euh, dafa doon def euh, examen ci mel ni bak waaye dafa mujj échoué yooyu yëpp muy ay révélation yoo xam ne Ousmane Sonko defaloon nañu ko te loolu euh, mënees nañu jàpp ni lu ko wundu woon du dara lu dul rek fitna gi nga xamante ne tegoon nañ ko ko moom Ousmane Sonko ndax ko xam ne góor ñu jël fitna teg ko ko amaana sax soo doon jàng wala ñenn ñi sax ñi ngi doon wax ne xale bi bu amoon bac sax dañuy wax ni du góor parce que perturbation bi nga xamante ne ñi ngi koy dund fitna bi nga xamante ne saa su ne rek ñi ngi dégg ñuy jël ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci seen kaw wajuru góor euh, di ko ak di ko tijji buy dem ñu di ko gazé ay grenade ak lacrymogène ak yooyu tere ko dem ak dikk taxaw nag yooyu yëpp perturbation yooyu daje woon ci famille Ousmane Sonko tax euh, xale bi bi muy def euh, examen euh, yi nga xamante ne moom mooy baccalauréat bi moom sax dafa mujj échoué ci li nga xamante ne moom la doon def ci baccalauréat yi gis ngeen ko noonu nag fii ñu nekk ci cité kër góor gi nag li nga xamante ne moom moo fi xew jamono ji euh, li fi am du lenn rek lu dul kii di Ousmane Sonko nga xamee ni rek dañu ko barricade woon boobu ak léegi fii mu dëkkee gannaaw rek ba ñu atte woon dossier Sweet Beauté bi doxoon ci diggam ak ki nga xam ne moom moo di Adji Raby Sarr gis nañu nag la nga xamante ni rek moom moo am boobaak léegi nag ba ñu xëyee loolu gis barricade yi nga xam ni moom moo nekkoon ci zone bi ñu daal di koy dindi tax nag ñenn ci patriotes yi ñu ngay fësal seen ak ci libération boobu nga xam ne rek njort nañ ni euh, kii di seen leader di Ousmane Sonko daal dina koy am jamono ji ndax fii nga xam ne rek fii la dëkkoon di makaanam dem ak dikk bi daf fi tàggatin bi woon moom Ousmane ko dañu ko lankaloon dem ak dikk maanaam mënut a génn dem fenn lu dul rek eh, droit ba mu amoon sax mu nees nañu wax ni moo di génn taxaw ci buntu këram ak yooyu bu mujj rek ba ñu koy gis concert de casserole bi nga xamante ni rek mi ngi ko doon eh, woote ci biir réew mi eh, gisoon nañu ko ba mu génnee ci buntu këram la yam taxaw daal di tëgg ay casserole daal di delluwaat ci biir. maxkaanam ah, nag waaye ci boobaak léegi nag ki ñu gisagum rek du kenn ku dul Jibi Njaay bu Pastef moom mënees nañ wax ni moom la ñu gis fii léegi mu génn taxaw fotow ah, ak ñenn ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di ah, patriote yi ndax ba ñu yëgee nouvelle bi rek am na ci ñoo xamee ni dañoo daw Eh, daal di ñëw fi nga xamante ni moom moo di ci cité kër góor gi ngir rek fësal mbégte bi nga xamante ni rek am nañu ko ca nouvelle boobu ñu dégg ndax ñoom njort na ni jamono ji kii di seen leader dina mën a génn ci mbeddu ndakaaru yi bu bëggee dem ca diwaanu Sigicoor it dina mën a dem eh, ñi ko gëj a teg seen ay gët daal di koy teg ay gët ndax namoon nañu ko lool moom kii di Ousmane Sonko actuellement nag vous êtes en direct sur Feeling Dakar TV eh, votre chaîne qui a l'habitude de camper ni ngeen koy gisee nag fii ci eh, buntu kër Ousmane Sonko la ñu nekkee ni lu toll weer ak lu tekk lii accès bi nit ñi amuñu ko fi woon ndax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di way takk der yi ñoom ñoo barricadé woon zone bi nga xam ne rek fii la Ousmane Sonko dëkk taxoon nag eh, kenn amuloon accès ngir mën a ñëw ci ci wet gi waaye rek bi ñu xëyee rek lañu jot ni nouvelle boo xam ne rek liy firnde ni mooy ñii di woy takk der yi nga xam ne ñoom ñoo fi tegoon seen ay barricade daal nañu koy teggi eh, rek dem seen seen yoon kon wax nag kii di Ousmane Sonko jamono ji mënees nañu ne liberté ah, xaw na ko mën a am sax ndax jamono ji ñi fi nekkoon doon ko teg ay gët maanaam di ko garder di woy takk der yi jamono ji nañu wax ni nekkatuñu fi eh, ndam lem nañu seeni ay kaaka dem fa fa ñu jóge woon kon nag dem ak dikk yéen nga koy gis moto yi di def va-et-vient yi ñenn ñi bu ñu yégee nouvelle ba léegi rek dañu taal seeni ay woto ak seeni ay moto daal di ñëw fi nga xamante ne rek fii mooy makaan bu eh, kër Ousmane Sonko nag yéen nga koy gis noonu loolu moom moo fi jot a xew ci subaak léegi ma bamtuwaat ko rek kii di Jibi Ndiaye di chef de protocole bu Ousmane Sonko moom gis nañu ko fi léegi rek mu taxaw nii ci wetu woto bi rek ak ñenn ci nga xamante ne rek ñoom ñoo di patriote yi nga xam ne bu ñu yegee nouvelle bi dañoo daw daal di ñëw fii bi ñu ñëwee nag gis nañu ñoom Jibi Ndiaye naam gisaguñu kii di waaye gis nañu Jibi Ndiaye taxaw nag di photo wook moom ak gis ngeen nag euh, boobaak léegi dem oto yi ñu ngi dem moto yi ñu ngi dem euh, kenn tereetul kenn jàll euh, mel ni liberté am na ci ci ci biir kër Ousmane Sonko yéen ngi koy gis noonu lii moom moom fi joto xew xew yéen sunu ay mbokki internet yu Feeling Dakar di leen jaajëfalaat bu baax a baax rek ci topp ak ànd bi nga xamante ni saa su rek ñu ngi koy nemmeeku sunu digg ak yéen mu nekke loo xam ne rek mbégte la bu amul app bu amul fu mu yam ñu di leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax Ali Rasoul ngeen di am ci ci commentaire bi fii ci biir cité kër góor gi. li fi jot a xew mooy ki liberté bi nga xamante ne rek njortees nañu ne kii di Ousmane Sonko di njiital Pastef daal dina koy am ci subaag léegi gis ngeen nag tax na ñenn ci euh, way patriote yi ñoom taal nañu seen ay moto wala seen ay oto sax ñëw rek di a mbégte bi nga xamante ne am nañu ko gis nañu fi ay ay soxna yoo xam ne ñoom fii la dëkk ci ci ci ci quartier bi ndaam sax dañu doon bañ ku leen filmer ak yooyu taxoon nit ñu ne ñoom wax dëgg neex yàlla fii ñu ñëw ba taxaw si euh, ci wetu kër Ousmane Sonko dañu namoon yoon bi ndax weer ak lu teg mi ngi nii ñu barricade leen euh, kenn munu dem kenn mënul dikk ñoom ñëw nañu fi ndam dañuy bañ ko leen jël ñu génn ci image waaye ñi ngi wax ci seen ay kàddu ni euh, rek mbégte la ñu am ndax dañu wax dañu am free maanaam liberté la ñu am jamono ji ndax fii ñu jaar wala fii ñu ñëw taxaw ñoom sax ña wax ni rek mënees nañ ni ah, weer ak lu teg moo ngi nii rek kenn amul woon foo foo foo jaar gis ngeen ko makaan bu kër Ousmane Sonko moom moo euh, nekk noonu di immeuble boobu mën nañu jàpp peinture bi na nañu ko wax euh, euh, maanaam orange ak yooyu waaye nag li nga xamante ne rek moom moo fi mooy patriote yi par benn par benn ñu ngi ñëw di jàll. tey wane seen ak mbégte bi nga xamee ne ñu ngi ko am jamono ji nag cité kër góor gi mënees nañ ñu it tamit taw bi mi ngi commencé di wàcc fii ndax ma ngay commencé di di di am ay wis yu di ji yoo xam ne rek dañuy jéem a xool nen nu ñu mën a def euh, rek ba ba ba mun rek taxaw te ndox mi du laal ñu mun woy di leen dégtal live bi ngeen di ko dund yéen internet yu Feeling Dakar buntu kër Ousmane Sonko di ci cité kër góor gi foofu ngeen di gis yëf yi nii gis patriote bi ñi ñu ñuy fësal seen mbégte ci barricade bi nga xamante ne rek dindi nañ ko fii ci buntu kër Ousmane Sonko di njiital Pastef ndax sees nañu ne rek mooy Ousmane la lanu ko defoon dëppoowul ak yoon dañu ko doon jaay doole te it di ko xoppatal taxoon nag yëf yi metti woon leen lool daan nañu gis ay rencontre yi am ñenn ñi ñu ñuy wax sax ci waa Yewwi Askan Wi ni dañuy ñëw pour euh, rek libérer ki nga xamante ne moom moo euh, da woon war a doon seen mbër ci euh, élection yu présidentielle yu deux mille vingt quatre di Ousmane Sonko waaye loolu mujj tantôt ndax booba ña ngay waaj tabaski bi moom Ousmane Sonko nag tabaski ci biir këram la ko gis nañu déclaration wala live ba mu defoon rek te di wax ni ku ci mel ni rek ku tedd kooku di Serigne Cheikh Saliou di doom ci Serigne Saliou Mbacké yoo xam ne rek pour mu tabaski ko ak ñeneen ak ñeneen mu ci doon rassurer it sénégalais yi bu baax a baax waaye jamono ji nag ba ñu xëyee rek tey nouvelle bi nga xam ne moom moo ruusandi moo di kii di Ousmane Sonko euh, barricade wala barrière yi nga xam ne defoon nañ ko ci alentouru këram rek jamono ji déj nañu ko ñii di woy takk der yi rek lem nañu seen ay kaaka dellu fa nu jóge woon mënees nañu njort nag ni kii di Ousmane am ñu am njort rek dina génn ñu di ko gisaat ñi nga xam ne ah, namoon nañu ko gëjoon nañu ko teg ni ay gët eh, ñu mun a gisantewaat ak moom ko ne xam ne Ousmane Sonko am na lu lalu ci ndoddom eh, ndax maire la ca eh, dëkk boobu di Ziguinchor